nañ ci Modou Lo comme roi des arènes yi fi jot a bëggoon nañ mu daan man démb moom li ma gisoon moom mooy gars yi bëggoon nañ mu daan waaw yi ni ñuy fii noonu tamit ni ñuy reporté dafa gaaw gaaw de mm. da gis ne far gi day ëpp quoi waaw far gi day ëpp lool lool lool lool far gi daa ëpp nañ ko wàññi tuuti Sénégal far farloo gi moo koy yàq da ngay jox ku ne lim moom te kuy daw kenn du ko encouragé mm. waaw loolu day yokk ñàkk jom maanaam nit daw nga koy encouragé mm. yaa ngi koy gën a encouragé pour mu ñàkk jom nit bu ñu ko dàqee dañu bëggoon Modou Lo ñàkk ñàkk. bu ñu ko dàq xam nga sama sama sama sama sama benn xarit bokk na ci li mu daan def doom yi. suñ la dumaa nga ñëw mu dóoral la ne demal fayu ji. Hmm. buñ dóoree doom ji mu ñëw. da koy duma ne ko demal fayu ji. c'est-à-dire que moom waaw pour moom defet la sa doomam di dugg si ci kër gi ay jooy ndax moroomam la joteel. Hmm. xëy na keneen ku ko mag sax waaye xeexal sa moroom di jooy di ñëw boo ko defee mu duma waat la ne la demal nga fayu ji. lan moo sabab ñu bëgg kon mu daanu. ah non roi des arènes bu règne du buy defi règne arrangé wul nii kaseem day gën a jóg su bëree cent million tey daan <laughs> suba da ciy teg cinq wala dix bu ba daanaatee gannaaw su mu sekk ci fee xamal hmm. Mohamed Ndao Tyson bokk na ci tax ñu xeex ko dafa ñëw fu fekk làmb dafa ñëw fu fekk làmb yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko ba yóbbu ko trente millions bi mu ko fayee ko ñu xatar seen gémmiñ waaw ñu ñëw jee ñëw jël làmb ji doxal tuut 2004 yi gën a ñëw nag Ah, waaw yóbbu na fi làmb ji ba cent soixante quinze millions. Mhm. kase bu mujj bi muy bëreeg Balla yaakaar naa fay nañ ko cent soixante quinze millions su ma juumut. xaw ma deux cent millions. te des fois li ñuy fay mbëre gi ñuy déclaré sax du doon benn boobu ngi ci làmb ji yeneen sponsors yu mag yëpp ngi woon ci làmb ji. Mhm. moom daanoo la ñëw Balla yàggul ci korong bi boobaag léegi korong bi kenn yàggu ci ku ñëw da ngay kii dem. waaw jàpp naa ne boo egg sénégalais nag mooy dundee noonu da gunge ba nga egg si toog. Mhm. même politiciens yi gisoon noonu la ñuy def ñoom de boo egsee rek toog noonu yi commencé yokk gisuma sama bopp ci moom <laughs> moom kat ba mu toogee ba tey gisuma dara joxuma dara sénégalais yi noonu. la ñuy sénégalais wut la mën a àndal kuy wut la ñuy àndal boo xasee ba am. quelle culture la ñuy doon non gisoo ko léegi voiture tente lay dox. dafa sénégalais moo mën a seetlu. Hmm. dañuy topp détail. dañ duñ bàyyi dara duñu bàyyi dara dara dara mais man nag ci côté boobu gëm naa ne waa axlu làmb li dal sama équipe bi Barça moo leen da parce que Barça boo xoolee ñoom dañu bëgg képp ku fay nekk di doon vedette nga jógee ci mas masia bi maanaam c'est-à-dire ñoo lay formel seen bopp nga ñëw nekk di toj li ma gis nag ci waa axlu làmb mooy euh, lii keneen wala ñuy tudd roi des arènes tudd beneen dëkk. en tout cas gëm naa ne bokk na lee bokk na lee ci ci li leen gën a déranger xam naa bu ñu sañoon kiy doon roi des arènes ab doomi Dakar pour cent lay doon loolu tamit mënul nekk ci làmb ji parce que ñi ci bëri ñuy ñëw ut si daanaka dëkkuñu fii donc. loolu il faut ñu am compréhension boobu dal bi muy bëri ak Balla Gaye. bi yëpp Bombardier lañ faral. Mhm. ñi jóge Mbuur sax xaw ma ñetti kaar xaw ma ñeenti kaar maa ngi nuyu alaaji Papa Dieng. Mhm. ku xam làmb moom mooy toog ak alaaji Bekaay. waaw alaaji Papa Dieng ci biir géew bi. ci maanaam bi ñu taxawee mu xool stade bi alaaji Papa Dieng ne boo muy tey Ndakaaru duñu reer. Hmm. parce que ñëpp favori 100 pour cent bom Balla Gaye te xam nga lu teguñu ko ci dara nag. Hmm. lu dañ koo faral rek nag ndax ponkalum góor moo xam ne yow ëppoo ko poids ëppoo ko doole dàqoo ko dóor yow ñu ne la yaa ko mën tañ na bëri dóor. bëree dóor lan yow ñoom ñu bari ñoo sànq Balla Gaye keroog ba ni mu bëree mu bëree ko. mooy combat am ak Bombardier. waaw combat am ak Bombardier bokk na ci combat am yi gën a gën a gën a. waaw bokk na ci li ko sànq ba li mu bëree mu bëree ko. Hmm. te bépp adversaire buy teg pied gauche déclencher laaw croisé gauche exposé nga sa bopp. dangay daanu. bu noonu buñ la moytoo yow da ngay wane wet sa lii ngay wane dangay wane ginnaaw complètement adversaire bépp koy def même bépp combat. nga teg pied pied bi nga teg croisé bi ngay jiital nga laal ko soo ko perte bu dee adversaire bu mën a dóor la bu la dóoree da tëdd moom la Modou Lo defoon Eumeu Sène bu mu sànnee crochet boobu mu sëgg bi mu ko kiiyee bi ko dóoree dafa tëdd. surtout booy laaw sax. dangay ngay Sa bi mu ko defee booy ñang booy ñang daf koo éviter wër ko ndomba daan ko parce que crochet la boo xam ne wërul jug laaw lii la war a dem direct te buy dem dafa war a fekk bii mu mu ngi taxaw di xaar pour boo ñëwee. Hmm. bu bii rombee boo dawee ñëw bii mën la gàttandu. soit nag boo ko deful mooy yaa ngi sànq sax te mbër yu baree bari dañuy def loolu dañuy déclencher pied bi ñu teg ci la ñuy déclencher coup bi laaw. au lieu ñu jam direct de. Hmm. laaw la ñuy def. boo leen fentee doole ji. voilà wala ñu dooree ko doole. dox bi ñu jiital ñu dooree ko doole te boobu day neex a gis. Hmm. loxo bi ne ci kanam day neex a gis bi ci ginnaaw nga mën a nëbb. d'accord moo tax Malick da daan nëbb bi ci ginnaaw bi ci kanam la lay def. nii Malick Niang waaw bi ci kanam lay def nii. nga def nii mu doog ko indi bi ci ginnaaw parce que boo defee nii da ngay ñëwaat. Hmm. moom dóorkat la. waaw ah, loolu il faut ah, nga nekk xeex waaw foog nga nekk xeex xeexkat dëgg dëgg dëgg doo ko mën a xam. mais crochet bi ne ci kanam. du am doolee ba pare soo ko dóoree doole buñ la moytoo exposé nga sa bopp. nga wàcc waaw da ngay wàcc. acca ngeer xam naa ne du ñàkk war nañ la mën a utal fi benn palato spécial ngay waxtaan a gars yi ci làmb parce que li nga fi jot a décortiquer non nii ku xam làmb rek moo ko mën a wax ngeer eh, wax nga fi ci bëre wax nga fi ci xeex donc gëm naa ne bu ñu la booleeg Ousin wala Seydina Alioune si plateau ngeen di décortiquer làmb gars yi dinañ ci xam lu te xam naa ne bu ñu la cuxoon ci football aussi noonu noonu nga ci amee xam-xam. waaw man sport daal moom. parce que joueur nga woon sport moom sama yëf la woon. d' accord alors ñu dugg ci ci ci sumb waxtaan bi waxtaanee wàllum politique ñu war a jëm ci installation wu assemblée nationale ñu gis ne war na daar en tout cas bu ñu proclamer résultat définitif yi ñu gaaw installé ko pour mën a dabb vote budget atum 2025 kon mën nañ jàpp ne ñiy liggéey ñor ña leen. waaw ah na ko. c' est à dire nañ daal. waxati nañ daal hmm. nañ nañ lañ nangoon rek man ba moo waxee damay da nga xam nga wax nu ma ko jàppee. Hmm. raw buum yeew sa bopp. boo wa waxee rek raw nga buum ba takk sa bopp léegi nag say jëf rek moo la mën a tekki parce que hmm. yaa wax ba yeew sa bopp ndax yaa ne mën naa mooy yeew nga sa bopp léegi nag pour tekki sa bopp da ngay jëf. jëf ji moo lay tekki mooy askan bi dañuy ñëw man sax contourner li politiciens yi def ni contourner nga gagné di jubilé. loolu dama ko contre loolu ku nërta liggéeyee koy def ku xam li koy xaar du jubile Omar bun Xataab bi ñu ko joxee xilaaf ak jullit ñi hmm. moom da doon jooy hmm. ndax dafa xam li koy xaar xam nga kañ lañ war a jubile hmm. soo paree sa ñaari ay xoolaat sa bopp boobaa bu la neexee sax jubile la Cheikh Ibra doon wax xare ka daw dàqul ka dee dàqul jaloore borom mooy dem nettali ko mais ñuy gisoo leen ñu ngeer wala. ah ñi koy jubilé lañ dëkk ba léegi ñu ngi ci jubilé yi kay ba léegi ñu ngi ci jubilé yeeg ndaataata lax yeeg gundaa ndaat ak a kañ seen bopp tagg seen bopp ay génie politique yi déggoo ko fi ay messi teel na de. ah déet mais loolu observateur yu mel ni yow. non non loolu dafa teel dafa teel bu ñu xoolee fu mu jaar ak lim. fu def yëpp waxi kese la jàpp ne génie la lépp waxi kese la. mais moom moo moom moo wax ba ba ba ba. waaw wax ji moo tax yeew na boppam ku yeew sa bopp waroo tala jibile waroo tàngal sax ku lan la messi da nga naan man yi bàyyi leen ba ma yeewee sama bopp mënul tontu ñëpp nag ngeer waaw d'accord dama ne def jàngatam waxuma ngeer li ngay wax waxuma ko tuddee ko messi wala tuddee ko ñoo ñoo ko nar a sànq nag waaw mais peut déglu wala bu mu ko jël ci wetam de waaw am ñoo bu ñu la taggee automatiquement day agsi parce que duñ n'importe qui sax bokkut ak man mi nga xam ne man ànduma ak yow ci dara